maanaam le chef de l'État moo war a organiser en tout cas les élections euh, élections yoo xam ne nit ñi ñi ngi sàkk ay élections transparentes inclusives yéen waa réew mi déggaguñ leen ci mbir moomu leen ndax seen xel da ci dal wala euh, ba léegi yéen da ngeen di partager ak yenn leader opposition bi ñuy wax que ni quand même faaw ñu surveiller ko parce que il faut que mu nekk loo xam ne nit ñi dinañ bokk ñëpp bokk ñu ubbi ko mais aussi yenn ci ay galgal yoo xam ne da doon am des fois mu bañ ci am bu fekkente ne galgal na ci bien sûr non foofu dama lay delluwaat ci waxu président Idrissa Seck Idrissa Seck président Idrissa Seck da wax lu leer même avant sax dialogue bi yëpp moom nee na moom li mu gëm le maximum possible ku mën a bokk mu bokk mais condition yi mu tegoon mooy ne bu kenn jël xaalis askan wi ba pare ñu naan def ci bokk bala mu jël xaalis askan wi ku yor xaalis askan wi na fay doog bokk. loolu la waxoon am na ñu condamné. yaa ngi dégg ku yor xaalis askan wi na fay sa normal parce que sax. candidat bala nga koo doon da am quitus fiscal. Mhm. boo mun quitus fiscal waroo mun a nekk candidat. donc li mu wax teg na ko fu leer mu ne boo demee États-Unis nit sax mën nañ ko condamné ba pare mu nekk candidat parce que bu askan wi d' accord ni waa kii de condamné nañ ko mais fautam boobu ñun reconnaître nañ ko def président amul problème donc li nga xamante ni daal mooy li yëfu alalu askan wi. moom nañ mhm. ko sàmm yeneen détails yi ci boppam bu fekkee ne moo mën a. galgal nit ñi buñ ko mënee teggi nañ ko teggi la déggee bu baax peut-être mi nga mi ñu ñu euh, ne euh, mu dañuy changer le code électoral euh, buñ ko changé bee dinañ bokkaat ci élection yi Karim Wade sax moom nee na depuis août 2020 élect mën na nekk électeur donc il était éligible mm-hmm. kon yéen d'accord leen ci ci lan si parce que yéen a ngi wax waxu alalu mais attends loolu ñu foofu ñun xam nga mm-hmm. loolu président Idrissa Seck loolu dañ ca yar ca loolu lañ nekk ñun nekkuñu di indexé nit ñun principe la ñuy dégager. principe dañuy tudd ay tur ñun dañ lay jox exemple. a concerné ñenn bu fekkee mais Idrissa Seck ba mu doon wax loolu ñëpp xam ne Khalifa Sall ak Karim Wade lay waxal. ah waaw kon kay jërul laaj ko léegi noonu noonu dinañ la ko laaj parce que lu mu wax mooy est wax boobu mu wax ko ça dire que ñaari candidats yooyu su fekkee c'est acté day ah. constituer menace moom ci Idrissa Seck mën na la candidature de Khalifa Sall ak euh, Karim Wade. man je pense que pertinemment sénégalais yi ñoom ñi xamante ni ñooy tànn bu dee dañoo bëgg un bon choix boo xamante ni teg nañ ko ci lépp loo xamante ni mooy compétence ak lu war a jëlee Sénégal kanam président Idrissa Seck amul benn menace bu ne si kanamam. li il suffit tout simplement ñu dem liggéeyi def lef li ñu war a def déglu askan wi askan wi moom mooy tànn euh, soir du 25 février kan lay doon ca loolu ci la nekk. mu ngi massifier def programme am pour ñëpp mën ko wuy si ñu mën a taxawal li ñuy taxawal bu ñu demee élection mu mën a gagné. loolu la gëm. Mhm. mais ñibbisi euh, quoi ngeen ne ñibbisi parce que dañoo dégg euh, fan yi ngeen lancé ko en tout cas depuis Thiès gi nga xam ne foofu lañ ko xam xamee woon sax peut-être buñ ne fief wala ex fief xëy na <laughs> di ngeen ñu ci leeral ndax ba léegi fiefam la wala déet. Mhm. <laughs> wala ndax ma fa boof ba léegi. Mhm. Euh, mais dañoo dégg ñu ne ñibbisi quoi ngeen sentir que ni nit ñi faw ñu ñëwaat ak ñan ngeen ci viser exactement. non ñu ñuy viser mooy képp ku ma a bokk réew mi. ku képp ku mas a bokk réew mi. ñoom Thierno bokk ba ci M6 ba léegi. képp ku mas a bokk réew mi na ñibbisiwaat këram. parce que li tax mooy ne jot na pour ñibbisi parce que njiital kër gi jot na pour mu jël réew mi donc il est le moment que ñëpp ñibbisiwaat. amagul na ñaari candidat yu bokkoon réew mi. voilà donc c'est ça loolu la ñëpp amul amul xej amul seet ñëpp euh, lañ wax. Déthié Fall voilà même sax weesu nañ sax réew mi. ñi ñibbisi bi sax wax na la famille soppi nañ ñibbisi. parce que moom waaw somi famille soppi libérale nañu ñibbisi parce que actuellement le fils aîné de la famille soppi <laughs> c' est Idrissa Seck. est trop de prétention ah, ak ñoom liñ dépensé yëpp def ay congrès créer seen i parti teg lépp dem lancé wu euh, di ci faal démb rek ñu ngi ko gis ci xalif général des mourides mhm. euh, mu demoon ziyaare ji ko doon wax aussi ci euh, yenn ci tooluwaayu réew mi ngeen ne leen ñu ñibbisi est-ce que loolu du trop de prétention mais loolu mooy borom kër loolu mooy rôle am borom kër day am benn moment mu teg lépp ne leen yéen ñëpp samay doom ngeen ñibbisi leen. mais ku samp kër ba pare kenn kër gi ñëw ñibbisi waat ci sama biir kër da ngay bàyyi sa doom bu dee samp na kër ba pare mu doxal na doxal këram mu ñëw jàpp jàpp ci biir kër gi de. waaw <laughs> na ne. <laughs> alors ci ñibbisi boobu nga ah, ah. Euh, booy xam ne mooy euh, ñu bokkoon ci parti réew mi dañoo war a ñibbisi. waaw léegi ñoom ñëpp bu ñu ñibbisi. ñu bokkoon ci soppeeti ñibbisi waa famille libérale yëpp nañ ñibbisi. waaw bul ma dàgg déglu <laughs> léegi ñoom bu ñu ñibbisee. Ah. est-ce que yéen d'accord nga yéen it ngeen ñibbisi ci seen maison mère muy le ah. PDS pour am benn candidat libéral comme da ngeen wax ni wàllu euh, retrouvailles famille libérale ngeen bëgg ci boobaa est-ce que vous serez prêt jël Karim Wade def ko comme moom mooy le fils biologique de Abdoulaye Wade pour retrouvailles famille libérale da juum da juum parce que fi nga juumee mooy ne politique lañ nekk. non Wade ak Idi pour man c'est fini. non par rapport li ko Idi wax yëpp avant. <laughs> mais nee euh, nañ non non ah, mais politique tout baal ma tontu tuuti. Mhm. nee naa la taawu kër gi actuellement c' est le président Idrissa Seck. mais doom biologique nag nga ne doom. ci non politiquement du doom biologique. doom adoptif ak doom biologique. non li nga xamante ni mooy kii légitimement ki nga xamante ni tey kër gi bu bàyyi kër gi jógee moo war a doon na kër gi c' est le président Idrissa Seck. te moom buy woote li muy wax mooy ne la famille soppi laay woo toute la famille soppi. kon nekkul fa naan PDS ak réew mi ak APR ak nangam. li ngeen yàq l'essentiel c'est la famille libérale actuellement moo c'est le fils aîné. yéen est-ce que mën ngeen taxaw di di réclamer son héritage. amul benn eh, cohérence. Eh, est-ce que yaakaar nga ne yàq nañu Ablaye Wade lu lu mën a tax. ñu ngi bàyyi ko waaye Issa Issa dafa la ah, mise à Issa loolu boo ko seetloo euh, dina am ci kër léeg-léeg bàyyi ak doom wala mag ak rakk ñu réeroo ci kàddu. waaye bu ñu demee ba retrouver wu dañuy jël loolu lépp teg ko ci am na ñu ci njortoon ne sax règlement de compte la parce que. Idriss Seck léegi nag su ko defee dafa soupçonné peut-être su ko defee euh, Issa loolu su demee ba weesu ñoom. moom bu ñu demee ba xalaat ne loolu mën naa ne. ça veut dire lépp loo xamante ni woon na si ginnaaw. loolu fàtte nañ ko parce que dañ ne bëñ ak làmmiñ ñoo dëkk. ñoom ñaar moo leen gënal léegi loolu mooy seen intérêt fi mu nekk nii ah loolu mooy seen intérêt fi nekk nii ñoom ñu fàtte mais c'est l'intérêt de famille libérale c'est normal la famille libérale a besoin de survivre de vivre plus de cinquante ans ci pour koo def il faut que ñun ñëpp ñu booloo c'est normal les règles sont transparentes est-ce que gëm nga que ni quand par rapport la situation euh, bi nga xam ne mooy euh, situation très tendue quand même dans ce pays euh, yaa ngi dégg ay condamnation par ci par là dégg nga aussi parrainage bi ñuy wax question bi sax xëy na wàññi nañ ko wàññi parrainage bi mais yokk nañ ci parrainage des élus boo xam ne xëy na comme neex mën nga ko wuti ji beneen bi mooy ñoo xam ne yaa a des condamnations sur leurs épaules boo xam ne mooy pesé wu est-ce que jàpp nga que ni ay élections transparentes ak inclusives moo nar a wala le président na ko organiser fekkente ne aussi euh, jàpp ngeen loolu lan ngeen di réclamer ci moom. non ñun jàpp nañ ne dina am transparence parce que Sénégal sax élection yu transparente mënatu fi am boo xoolee processus code électoral bi niñ ko tëralee ak processus électoral bi niñ koy defee euh, daanaka élection nit mënatu ko fee dëpp li am solo mooy fexe ba nga mën a am ay militants nga dem boole léegi nag inclusive bi ngay wax mhm. c'est ça c'est le souhait parce que li tax loolu l'intérêt bi mooy ne élection yi gën Sénégal mooy élection yi bu ñu ko defee ba pare ki perte xam ne perte na dem toog ki gagné dem gagné ji dëkk bi am jàmm ñu mën koo développé waaye suñu defee élection yoo xamante nii bu subaa mbiccoog mbaalaw lay demaat fii ak cinq ans amul amul amul sens donc looloo tim le président de la république Macky Sall xam na loolu am na responsabilité boobu te ni mu defee sacrifice ba ne moom du dul nekk candidat gëm naa ne sacrifice wala constitution dina def le maximum possible pour que élections yi fi am nekk des élections transparentes mais inclusive le maximum possible inclusive nag ça demande que ñi war a mën a nekk candidat nekk ko ñi nga xamante ni yoon moo leen ko xaaj ñu xam ne aussi yoon moo leen ko xaaj loolu aussi moom looloo tim ci réew la bokk. lu tax nga ne sànq mu am lu bi naa ci bu nga ko sacrifice. non euh, am na un certain weesu yow ñi nga àndal ñëpp fa la famille benn Bokk Yaakaar on demande que le président se présente dem nañ ko ba ne ko président sax yow boo présenté wul da ñoo war kon loolu nga wax ni yaa ngi donc moom bu jëlee en cent mu jàpp ne moom bu sàmm kàddoom ba mu waxoon bu njëkk ak jàpp ne gënu Sénégal mooy bañ a nekk candidat. loolu mooy moo tax man man loolu laa jàpp ne mooy. sacrifice waaw loolu laa ko jàpp man pour Issa il faut ñu dem si suñu euh, point bi nga xamante ne aussi dafa bokk ci actualité bi euh, mu nekk nouvelle bu tiis a tiis.